en premier lieu bi ñu nuyo ba paré ñi ngi sant ñi nga xamné moy suñu gan yu joggé Dakar euh ñu nekkon les scouts du Sénégal euh, sous la coordinatrice de Aïssatou Koli euh, ak euh, ñop docteur Agnès mais di sante tamit l'association des médecins euh, Diourbel santé euh, ñi nga xamné ñoy docteur yi nga xamné ne ñoo dëkk fii ci Njaaréem àndoon ak ñun ci liggéey bi mu nekkoon une activité euh, de santé mais bu population yi soxla woon ñu dégg sen tawat ñu ñëw and ci ak ñom ñun wa mouvement pour le développement et l'entraide and defar suñu gox di remercier ñi nga xamné ñom ñoom ñoo doon coordonné activité bi buñ ci limé Baye Cheikh wad ak ñim ko andalon ñëpp mat na sëkk li mu waron wax wax nako mat na sëkk mais di jaajëfal bu baax les populations de Diourbel ak l'ensemble des membres du mouvement et sympathisants qui nous euh, réunissent li nga pour accéder accès fii euh, sous la sous la supervision euh, de la coordonnatrice de l'activité Aïssatou nga avons presque on a atteint la barre de 900 euh, patients qui ont aujourd'hui tey fii nga euh, mais de remercier encore une fois le directeur de l'école Moui Souleyman Ndiaye et en même temps le l'inspecteur de l'éducation et de la formation monsieur Massali ñom ñi ngi leen di sant bu baax ñom ñi nga activité mais en même temps aussi di remercier toute la corporation association muy ñiy yëngatu ci walu paj ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di sant membre mouvement bi yëpp duñ gudd euh, di wax ne tamit ci biir activité bi noonu lañ fas yéenee tamit accompagner dans ce domaine de la santé ak àndandoo ko ak waskut yi accompagner les les postes de santé euh, yi nga xam ne mooy Kër Cheikh dote leen ay matelas dote leen li nga xam ne mooy ay poubelles euh, moy fu ñuy def ay mbalit mais aussi ay ventilo yo xamné ne accès nañ pour yobul len ko lépp c'est disponible mais tamit euh, di wax né euh, ñi nga xam dañoo nekk ci ben ASC regroupé fee ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy koñ bi muy wa képar gi tamit wut nañ ay balu football yo xamné ne dañ leen ko fas jox yoy yëpp accès na dem yëkëti ko jébbal len ko moom mo ci dess kon ñi ngi sant bu baaxa baax ay satou ñi ngi leen di sant di sant wa membre mouvement bi yëpp di sant le comité d'organisation jërë euh bu nekk ci volet donc objectif bi Moy euh, vraiment soutenir population Diourbel Ça à dire bu ñu soutenir leen mooy dañuy remarquer ni souvent dañuy am difficulté pour mën a am accès aux soins c'est-à-dire loolu bu amee euh, li nga xamante ni nii moom moo ci taxawaayu mouvement parce que idéal bi mooy ànd defar suñu gox te ànd defar suñu gox d'abord santé d'abord wér gu parce que ci le lépp xaj donc si volet voulez avons accès pour soutenir la population parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 900 patients cela montre que c'est-à-dire volet santé à il y a des difficultés d'abord il y a des difficultés financières il y a des difficultés d'accès c'est-à-dire la population a accès catégoriquement pour voir aller pour vous. a euh, donc dans ce sens c'est le mouvement bi donc quand même euh, journée bi def ko activité en plus de ça képp ko xamante ni nii nañ la consulter nañ la xol nañ li sa tawat dañu am ay médicaments yo xamante ni nii moo ak sa tawat donc ñu jox la ko té ñi fi ñew tay mën nañ cee lim gynéco mën nañ cee lim dermato mën nañ cee lim dentiste etc etc mën nañu wax ne regrouper nañ aujourd'hui plus de 35 médecins yo xamante ni ñoom ñoo soutenir euh, plus de 900 personnes yo xamante ñom ñoom ñoo leen as donc sur ça dal vraiment ñuy remercier euh, mouvement bi encore les membres parce que lépp c'est par la volonté des membres entre et etc. donc nous avons des suñu ay partenaires les scouts du Sénégal donc voilà c'est vraiment mon activité pour nous. évidemment parce que en fait nous aussi dans ce sens c'est-à-dire que nous ci am pour continuité un suivi donc il faut que euh, les moyens de bord nous nga quelques matelas quelques cobelles, quelques lieux, pour au moins soutenir les les les personnes euh, en besoin donc c'est ce waral ñu parce que aussi am na volé volet volet sport Nous y a parce que pour wax santé aussi il faut nga am corrélation sport donc loolu je veux waral sur ça ASC boo ni koñ bi les anciens les jeunes les nouveaux donc par la combinaison de nos efforts nous taxawal ko maintenant nous avons ko le euh, mouvement bi aussi am ballons de football nous xamante ni nous mettre à leur disposition pour nous aussi mu nekk volet prévention parce que nous ñu waxee sport wax prévention donc ku wax santé aussi wax d'abord prévention donc loolu moo waral aussi volet boobu ñu anticiper un tout petit peu avec les euh, maigres moyens donc pour monde ko mettre à leur disposition